jamono ji sax maanaam xar yi bëreeku la te xar yi nga xam ne ñoo fi jot a nekk maanaam kenn mënu ko laal te ñi nga xam ne ñoo doon jël ay xar di jamono ji am nañu ay jafe-jafe yu rëy la nga xam ne moo ko waral bokk na ci liggéey yi nga xam ne mooy liggéey yu BRT yi yéen a kaay gi nee na moo tax xar yi cher journal bi nee na du xar yi rek moo cher ndax ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi ñoom jamono ji ñoo ngi jooy ci biir yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na li nga xam ne mooy aliment de bi maanaam xont bi nga xam ne moom la ñuy jox xar yi xont bi dafa daal di cher ba jéeg dayoo te nag bëri na ci ay gox yoo xam ne amuñu sécurité te ba pare wéy di am li nga xam ne mooy ay jafe-jafe ndox yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na en tout cas li am ba de sala soo mooy tuulee Tabaski gi dina metti lool ci ñenn ñi yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy ci code électoral bi nga xam ne daan nañu koy modifier ba adopté ko niki démb ci conseil des ministres yéenekaay gi di Vox Populi nee na lu toll ci juróom-ñaar fukk ci ay modification yoo xam ne def nañu ko ci code électoral bi yéenekaay nee na danañu ko voté en urgence fukki fan ak ñett ci weeru juillet yéenekaay gi na danañu ko promulguer avant 23 juillet yéenekaay gi di L'Observateur nee na Macky Sall ci urgence la nekk yéen kaay gi de la Tribune nee na lu jëm ci mbiri Khalifa Sall ak mbiri Karim Wade ak déggoo amu ca ci li nga xam ne mooy dialogue politique bi moo tax ñaari dossiers yooyee daan nañu koy jébbal njiitu réew mi di président Macky Sall yéen kaay gi de Les Échos xëy ci modification yi nga xam ne amal nañ ko ci code électoral bi nee na léegi maanaam communes yi a conseil départementaux yi tête de liste majoritaire bi bu gagné moom la ñuy fal directement yéen gi nee na lu jëm ci wàllum caution bi loolee ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi nee na dana ci wéy di ci waxtaan ak gaay bëri na ay point yoo xam ne ba léegi nii ak déggoo amu ca yéen kaay gi di direct news ñu xëy fekk fa Mame Mbaye moom nee na candidat la ci mairie bu Ndakaaru yéen kaay gi de la Tribune nee na élection locale yi am na ñoo xam ne ay farceur la ñu maanaam ñoo xam ne dañuy caaxaan di wax ne ay candidat la ñu waaye nag teguñu ko fenn am na ñoo xam ne ay profiteur la ñu maanaam dañoo bëgg a amal ay chantage ci li nga xam ne mooy seen candidat yi nga xam ne moom la ñuy déclaré yéen kaay gi nee na am na nag ci ñi nga xam ne ñooy def déclaration candidature ñoo xam ne nag ay profil yu baax la yéen kaay gi duñu xibaar naan ñu violence yi nga xam ne moo amoon ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ba am benn restaurant boo xam ne dañu ko saax-saaxee daal di koy yàq am benn professeur boo xam ne am micro ma dañu ko nang nangu woon yéenekaay gi nee na conseil de bi daan nay jël ay daana yu méttee métti lal ko ci ndoddul étudiant yi nga xam ne ñoo def mbir mu nu mel am na ci benn étudiant boo xam ne dañu ko dàq définitivement à vie fi nga xam ne mooy ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru am na lu toll ci juróom-ñaar ci étudiant yoo xam ne dàq nañu leen ci université lu toll ci juróomi at am na lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar cay étudiants yoo xam ne dàq nañu leen lu toll si ñaari at te ñii nga xamante ni ñoom la ñu dàq jël ay daan lal ko ci seenu ndodd ñu sa ëpp ñëpp foog droit la ñu nekkoon yéen a kaay gi du l'observateur xëy duñu xibaar naan ñu assemblée nationale député yi ndax nag ñoo ngi def correctement seen liggéey ndax nag député yi gis nañu ne seen mandat yi maanaam benn proposition de loi rek la député yi def yéen a kaay gi di réew mi quotidien njiitu réew mi di président Macky Sall nee na li nga xam ne moo jëm ci wàllum manifestation yi ak wàllum événement yi nañu ko wàññi nañu ci def ndànk ndax coronavirus bi ndax ñetteelu vague bi yéenekaay gi de Le Quotidien nee na Macky Sall nag su ko neexee mu daal di taxaw di tere li nga xam ne mooy manifestation yi ak rassemblement yi ginnaaw nag bi mu defee li nga xam ne mooy ay turne économique ma ba pare ginnaaw bi mu waree réew mi ba na saay Macky Sall su ko neexee taxaw di wax ci mbirum rassemblement ak mbirum ñetteelu vague yéenekaay gi de La Témoin nee na ñi nga xam ne nag ñooy médecins di yëngatu ci lu jëm ci wàllu wér yaram gi ñoom nag way politique yi la ñu joxar bi baaraamu tuuma ñetteelu vague bu amee ci réew mi ñoom ñoo ko waral yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Assane Samba mu xëy jël xalimama nee na bu ñu waxantee dëgg a yi nga xam ne moom lay def yéene kaay gi wal fajëre xëy nag sampab laaj nee li nga xam ne mooy ñàkku bi est-ce que nag wur ta mën a nekk obligatoire maanaam askan wi ñàkku par force ab laaj la boo xam ne médecin yi ak juriste yi ak simple citoyen yi bokkuñu ci gis-gis yéene kaay gi di source xëy dañu xibaar naan ñu commissariat bu Touba niki démb lu doy waar moo fa xew ndax dafa am benn taximan boo xam ne dañu ko tuumal ne dafa yegg ci benn xale bu jigéen boo xam ne àndul ak xelam taximaan bi bi ñu ko laajee nee na xale bu jigéen bi maanaam ñoom ñaar dañu doon bëggante te ànd bi ñu ànd lépp maanaam ci lu ko neex la yéen kaay gi délibération nee na scandale moo am ci fi nga xam ne mooy noota jobaas foofe nag dafa am koo xam ne Sadi Kébelo tudd dafa yoroon fetal maanaam yor ko ci néegam di ci fo fetal gërë ci ko bal génn sa dal ci benn jarbaatam jarbaatam ba seddu yu jàpp nañu ko gendarmerie moo def lu ni mel te fetal googee amutoon benn këyit yéen kaay gi di